Wiwaro, wiwaro, wiwaro, waro yernane. Wiwaro, wiwaro, wiwaro, wiwaro desnane. Joy na ja ja ja, joy irim majik, joy tlada iner. Vegan, vegan, nagani alonder. Papa sering daga daga founder sama walau walau.

station de pompage yooyu nag dañ koy réaliser sur la base d' investissement public maanaam état bi moo ko réaliser mais dañuy def après lu ñuy woowee transfert de gestion maanaam état bi dañ koy réaliser ba pare mais dañ koy jox béykat yi pour que ñoom léegi ñu yor ko di ko gérer ci kaw loolu aussi donc état bi dafa bëgg lépp lu mu def ci investissement ñu pérenniser ko mu nekk loo xam ne day sax dàkk nit ñi ko mën a jëriñoo lu yàgg parce que dafa nekk xaalis Sénégal yépp lañ fa investir ba taxna sur cette base état bi dafa ne ñu def entretien ak maintenance régulière ci station yoyu pour que station yi doog mun nekk lu yag mun durer ñu am pérennisation de ces équipements là. et donc boo ko donc sur ce plan là donc ñu liggéey biñ ci def au niveau de la dame pour la maintenance dafa am ñetti façon liggéey bu ñëk bi ñu ngi koy tuddee entretien systématique dina ci ñëwaat benen bi nek lu ñuy wowe dépannage benen bi nak réparation ci tënk bu ñu entretien systématique nag moy union bi bala muy démarrer campagne war nañu ñëw saytu station de pompage Hol est-ce que amul lu si jagadi est-ce que amul problème parce que li ñu bañ moy nga tambali sa campagne dawal ay semaine rek mu paan taxaw fekk nga defoon ay investissement à coût de centaines de millions donc des indi perte boor na donc bala ngay démarrer sa campagne équipe dames yi dañuy ñëw def lu ñuy wax maintenance systématique génne pompe yi xolat seet est-ce que amul dog-dog amul lu ci baxul également aussi xol équipement électrique mi andal nak lepp yemb na pour nga dem mën dem campagne de manière sûre donc loolu chaque fois buy démarrer campagne dang nga def ni accompagner la ci leneen li ci mooy lu ñuy wooyee dépannage xam nga nak mbirum machine yeen say yi da ngay daw ba si am ci jafé jafe bu bo aussi équipe bi dañuy ñëw sur place xol équipement bi def contrôle li ci war lepp luy panne buñ ko mëne réparer sur place ñu réparer ko changer pièce de rechange yu sew sewaan ak yoy de telle sorte que yow buñu dem sa équipement des dawat nga mëna continuer sa campagne moy li ñu wax dépannage yenn say aussi mën nga am panne buñu ñëwé day laaj liggéey bu xaw dis bi nga xamné ne faw ñu jël équipement bi génné ko yobbu ko ci ay atelier defar ko mën ko indi watal la ñuy woowee réparation yenn réparation yi nag dañ ko def suñu atelier yi mais bu laajee équipement yi nga xam ne dafa 10 am nañ ay prestataires yi nga xam ne quand même ils sont dans la zone wala hors zone yi nga xam ne dañuy def mise en relation ak ñooñu ba pare ànd ak ñoom toppatoo leen de telle sorte ñu mun leen defal réparation bu mucc ayib également ci ay conditions financières yi nga xam ne c'est vraiment acceptable et supportable par les producteurs donc globalement ñetti maintenance yooyu donc moom la ñu def au niveau des stations de pompage et en retour nag léegi union yi on quand même une participation forfaitaire c'est symbolique Cela mooy permettre en fait acquérir les pièces de rechange les pièces de chaque fois bu nous def dépannage réparation C'est ce la ñuy donc ci lañ koy sur ce plan bu fait une euh, union yi accès pompe yi dañ accès le nombre de pompes bu fekkee ne donc réparation systématique la dafa am un forfait par pompe établir à 62 000 en fonction de la taille pompe, la pompe ou avons 40 000. Mais zone nous au niveau de la délégation de Dagana, entretien systématique est tombé à 62 000 francs par pompe. Donc, mais le nombre de pompes fois 3, nous multiplions par 3. Bon, les pompiers, nous avons entretien avec les privés, nous avons multiplié par 4 ou par 5. Donc, pour dire que le symbolique, l'État est moins que le une participation symbolique donc si la déggee kon euh, euh, euh, gestion maintenance et tout producteurs fay donc sur ce plan là donc duñu fay à part cette contribution symbolique bi ñuy def. Mhm. bu dépannage la. Mhm. équipe bi dépannage. li ñuy donc une demi journée. Mhm. quel que soit le nombre de personnes 10 000 francs ngay fay. tu déplaces une équipe de techniciens pour une journée une demi journée nga fay dix mille. boo une journée entière tu fais 20 000 francs donc boo ko compare ak nous waroon jële ji un prestataire de service ci biti kon bu ñëwee bu la facturer déjà déplacement am rek jéggi na dayo ba war donc également fofu état bi indi na fa jappalé bu baax a baax ba légui ci mbirum fay mi d'une manière générale quand même Union yi ñi ngi fay sen contribution bon. amna ci union yi nga c'est des unions modèle. ñi ngi fay correctement mën nañ ci citer peut-être rapidement union de Bundum de Bitiguet union de Ndiaye pour bañ juum quelques unions yoy am na yenn unions yi nga souvent aussi dañu am ay jafé jafé jafé jafé c'est lié au fait que dañoo am yenn problème yi lu mel ni par exemple facture Sénélec facture Sénélec daf leen sonal lool ba tax na yenn saa yi xaalis bu ñu prévoir xëy na pour dugal ko ci maintenance ak yoy bu facture Sénélec bi ñëwee loo xam ne kenn mënu ko muñ dañu mujj obligé wu jël xaalis bi jubale ko boor boobu ñu war mun ansi léegi di xaar pour maintenance bi yenn saa yi aussi yenn union yi bu ñuy def un budget de campagne duñ ci prévoir dara pour bu problème amé. et quelquefois comme euh, banque bi day contrôler seen compte des fois dañu am jafe-jafe pour faire quoi on est obligé de xaaraat une campagne pour mun ko provisionner donc plus ou moins loolu mooy jafe-jafe yi quoi donc ñaari jafe fait jafe la daal mbirum courant bi yenn saa bu ñëwee xaalis bi moo fekk day wala le fait que prévoir ñu ko woon budget donc globalement daal am na yenn union

yo bu fekkee ne da nga waxo banque bi de demoo campagne de waxo euh, Sénégal demoo campagne mom day japp ne da ngay soxla courant donc néna mom day mobiliser courant pour saa ko soxla courant boobu muy mobiliser néna daf kay xagn ñeneen ñuko wara soxla donc mobiliser boobu mu koy mobiliser di xaar nga soxla ko motax tax mu lay fayloo prime fixe donc béykat dañ ko yàgg jooytu ba benn instant état bi dem na di ci dox di ci dox ba ñu ne léegi prime fixe boobu donc bu fekkee ne léegi donc hors campagne la dañ koy dindi ñuy demaat di demaat ba finalement ak waxtaan yi état bi ne dafa bugg léegi prime fixe nous ñu dindi ko. complètement pendant campagne hors campagne. donc am na ay décisions yu ci état bi jël léegi li des ñu matérialiser ko sur le terrain. Euh, maintenant wax nga aussi tamit ci walu pompage bi ak euh, li nga xamanteni mom mo ci rôle SAED maintenance bi et tout mais la gestion globale euh, bu pompage bi à savoir ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo fay nekk en permanence pompici et tout ça revient à qui voilà motax sax sànq man la doon wax ne la dañu def transfert de gestion état bi day tabax station bi defar yeb ba paré ba mu nekk aux normes ñu jox ko union bi union bi moy jël son personnel moy jël égoadier moy jël pompiste moy jël lépp mo len jël également en charge mo len di fay union ci bopam aussi moy fay courant am mooy fay lépp li nga xam ne dafa nek charge de fonctionnement ci station khalis bop fi muy jógee nak c'est parce que union bi dafa am lu ñuy wax redevance hydraulique redevance hydraulique boobu dafa am ay rubrique yu bëri am na rubrique fonctionnement am na si rubrique DAT etc etc légui redevance hydraulique bobu pour union bu nek calcule calculer à l'hectare manam mën union bi da ngay 90 000 hectares benen union mën na 80 000 benen union mën na 110 000 c'est en fonction de taille casier bi ak importance charge donc xaliss bi union di jël pour sen fonctionnement ak fonctionnement station bi ci bas hydraulique bobu lay joggé donc mo waral donc wax le transfert de gestion lepp ñom la war ba mu donc maintenance boobu comme c'est un investissement lourd chez les états il faut quand même SAED teg ci loxoom accompagner leen en terme de maintenance. mais donc donte yéen a ngi def ay effort yu yu am solo yo xamante ñing koy gis mais toutefois euh, euh, pompage station de pompage yi nañu ci phase bo xamante war nañ leen renouveler quand même. waaw bo xolé par rapport ak station de pompage yi sànq bi ma wax redevance hydraulique daf ci am lu ñuy wax DAT dépôt à terme Lol manam, chaque fois campagne bu nekk am nga dindi dent ko ci banque bu doo parce que station bu nekk dafa am durée de vie équipement dañuy am durée de vie jëm quinze jëm vingt ans donc campagne bu nekk am nga loo war a génne lu DAT nga dent ko ba tax na à terme doo soxla ñu laajaat la xaalis teew teew des centaines de millions pour changer ko day fekk xaalis bob egg banque

utiliser en même temps pour nous montrer la station de pompage renouveler les bu renouveler au moins ça ñu def lu ñuy wax ben genre entretien général changer liñ ci wara a changer ba nga xamné station bi dina mëna dawat ay at yu bare bare bare bare quoi genre réhabilitation yu ndaw yu ci station monsieur gay lan nga japp ni mo wara don tay ben solution bu inclusive bo xamantene euh la SAED yenen partenaires yi les producteurs war nañ ci mëna dajé ba nga xamantene tay situation bi ngi nekk ci pompage yi wala ci tool yi en terme de euh, question d'évacuation des eaux par exemple problème drainage yi ñi ngi fi des pompage amnañ ci wal tay lan mo wara nek véritable solution bi nga xamante ni ñëpp war nañ ci daje pour que problème boobu ñu résoudre ko. jàpp naa véritable solution bi benn problème d'organisation la beneen bi problème de yëgoo la organisation maanaam union bi am na nu mu tëddee pàcc bu nekk war na am un responsable liggéey bi nu mu war a doxee aspect bu nekk am na aussi à partir de la redevance hydraulique loo xam ne woo moo war a permettre ñu def liggéey boobu ci biir bi entretien canaux secondaires yi tertiaires yi ñi ci biir union bi la war donc am nga ci donc niveau donc en termes d'organisation, ku nek bu wala en amont axe hydraulique ñun ñu maintenance aussi permettre chaque fois fu prendre un intervenir de telle sorte que problème de drainage campagne buy jot dañu mun a irriguer am ndox bu disponible pour ñu irriguer li koy indi mooy lan contribution ñu ko doon wax sànq état bi ñëw mais tamit que béykat yi seen redevance FOMAET ñu mun koo fay ñaar ñooñu bu ñu dajee liggéey bi sur le terrain du poser benn problème fu ñu amee problème machine mun na ñëw intervenir libérer contrainte bi difficulté bi ndox bi mun a Moi moo xam pour irriguer moi moo xam pour drainage donc globalement daal bu fekkee effectivement état engagement yi mu def moyens yi egsi nañu le reste problème d'organisation le problème de concertation lolu bu amé en principe ay jafé jafé mënul ñak nak ci mbéy mais day nekk ay jafé jafé yu mineur <laughs> lan mo nekk conseil bi nga xamantene ne mën nga ko joxé pour que au moins euh, ci ñi nga xamantene ne ñoo nekk ci pompage yi la bonne gestion l'entretien yi nga xamantene ce mom moy les les affaires mi euh, mine, yoo xamante ne mën nañ ko def à l'absence de la SAER waaw bo xolé ñom sen technicien yi dañuy am ay séance de formation ay séance de recyclage yu leen di SAED di defal moo xam dam la moo xam délégation la ci boppam loolu xam nga pour lan la pour techniquement ñu capacité leen pour que ñu mun di liggéey ci station yi pour les petits travaux le petit fonctionnement du soxla SAED fekkee ko ba léegi c'est dans le cadre du transfert bu nekkee nag lu jéggi dayo nag effectivement ci la ñuy woo les techniciens SAED ñu ñëw jàppale leen si Mashallah, c'est bon s'il est au un conseil. Waouh, conseil moi comme comme ni mu koy waxee rek mbir mi ñun ñëpp suñu préoccupation mooy ñoom démarrer campagne dans de très bonnes conditions eggale ko li ñu ciy séentu ñu am ci kenn ku nekk la la war nga def ko. comme nous ñu ko waxee sànq également banque bi tamit en retour mu gis njëriñu financement bi mu def loolu pour lan pour que objectif état bi ñu atteindre parce que état bi des investissements colossaux ici dans le delta dans la vallée et à travers tout tournée ñun ñëpp gis nañ ko xam nañ donc il faut aussi en retour ñu satisfaction état bi donc nous fi jóg ñu récolte non seulement nous mais également ñu ci Sénégal yépp parce que investissement yi fi def maa ko doon sànq c'est des investissements publics maanaam dërëmu ñëpp ci dem ku fi nekk ku fi nekkul ku nekk sax foog nga sa dërëm mi ngi ci et donc loolu la ñu mën a delluwaat état bi avec tous ces investissements qui sont faits qui sont vraiment à saluer. macha